ak leket laa ilaha illallah leket gi liñ ci dugal xam nga bii cumukaay cumukaayu kan la déet déet Korias Serigne Ndiaye numéro 2 Fass Fass ah way xoolal lii nga ne lan lamb ji laa jël si mais waa ka dul saane nañ doo jël lamb ji ñun ñoo ko moom tey nga toog waa ka dul saane ngee toog léegi na leer léegi si géew bi dégg dem na def li mu war a def ah. waaw. li nga yor nii bëri na de. waaw yii de ay ñoom maama ñu ko jox rek ay ñoom maam ñoo ñu ko jox. tey damaa jël si làmb ji làmb ji laa jël si. Korya sa ngoog. yàgg maar gis naa ñu ma gëj a gis. maa gis tey ñu ma gëj a gis sotte ko cey lamb ji xanaa daa mi muuma léegi xaar ndaysaan yàgg maar yàgg combat ba jo la dee ko bàyyi xel bi le seer la bu Malika waaw keroog moo àndoon ak général Malick tey général ñëw fi xam naa moo ñëw tax mu ñëw waaye yow mbaa duñ la daan moytul moytul moytul moytul cey jiga Jóob jiga li la may lum di way rëy na ndeysaan lonk lool daa sori et eh, waaye yéen xoolal kii niñ ko daane yow kii lu ko dal e waay ndaw Samba lonku ca lonku ca ginnaaw rek puus nga tëj lëndëm na daan nañu Bulldozer bu Malika beneen combat ngongu beneen combat ngongu beneen combat ngongu eh, daan na ko daanu nga bu yàgg demal sangu ji daanu nga yàgg na yàgg maar Cheikh Tidiane moom ngeen jàkkaar lool adversaire bi muy bëreel Cheikh laaj naa ko sàng hélas ma ne ko Cheikh loo doon jooy mu ne ma dama bëgg làmb rek Cheikh looy jooy mu ne làmb rek laa bëgg mooma ma tax a jooy waaye tey jii moom ne na fas yéene def erreur Elas jëlal ma combat bële ca kaw a kaw a kaw Elas nekkal ma fii yàgg maar bële ca kaw Serigne Ndiaye ak Libidor yaa ngi am Serigne Ndiaye Libidor Serigne Ndiaye bu faas ca ginnaaw a ginnaaw dañ noo xaw a sori nag a yow daanu nga waaye def nga kat appi bu yàgg arbitre kii daanu na ah way daanu na de Serigne Ndiaye Libidor Serigne Ndiaye jël na Libidor Serigne Ndiaye ak Libidor daan na ko da doole waaye ñoo bokk koñ Medina ñoo bokk Medina koñ bàyyi ci xel ñoo bokk koñ de ñu ngay waxtaan Serigne Ndiaye ak a bokk koñ de combat Cheikh Tidiane ñaa ngoongu Cheikh tiijaan Niang daw na ni jëli ko mu bañ ay Cheikh Cheikh jël na ko xale ba bañ Cheikh jël na ko Cheikh mbaa doon eh Cheikh moytul mbaa doon def kaat appi arbitre nee na bëreel Cheikh jëlaat na ko da koo yëkkati da koy daan na ko aaway daan na ko ah dan na ko daan na ko Cheikh Tidiane daan na mu ngoo ngay dem eh borom ñoo xool ko waaw ndeysaan yàgg maar premier combat du Sané Ngongu Kadhafi ñu leen di fàttali ne moo final woon Gambie mook Libidor bu Grand Yoff Libidor daan ko fa ne ma sànq damay dem final lam tooro lay bëreel moom itam gisoon naa ko gàmmi ca lese eh eh waaw e eh way waaw waaw ndeysaan di bërey fecc waaye dut saane waaye waaye nag na teey de lam toro daa mën a xale bu mën a bëre la noonu nga koy gis xanaa kay ngëpp ko doole waaye xam-xamu bëre am na ko de Xaddaafi waay lii lan la laa ilaha illallah mbete kuy fo e maar jëlal lii bàyyil ma kii xel kii nee daa am doole yëkkati dóor ci kaw yëkkati dóor ci suuf cey dut saane cey dut saane xoolal xoolal xale joof yoor bi waaw waaw xoolal lii yàgg maar yàgg yaa préparé ma samay fiil waaye ki wóolu na boppam yàgg maar ku ne ca cumukaay la xool kook cumukaay li yàgg maar mu nga ci sumukaay la gaa ngi koy defaraat ndeysaan e eh, way gaa yi kon di sax dañuy yëngu yëngal ndeysaan ewoy eh, mu ngay laaj yére yàgg maar day solu toppal ma Xadaafi day ñibi day ñibi joof xaalis bi lañ si xaalis waaw cay dut saane ba awa doon dootu ko dégg foofu laa na mbala ma wàcce la. ñu war yóbbu est-ce que une nit yóbbu. waaw dama lay wax rek li règlement bi laa di comprendre rek. waa Diofior a ngi yàgg maar nuyu naa meeru Diofior ndeysaan cey waa mais Doudou waa mais Doudou maa ngi lay ziaraat normal sant borom mais li nga bëre xale bi da nga koo jàpp rek yëkkati rek de sama grand la sa grand la waaw la mag ñoom mag fuuf sax mais ni ko daane daa garaaw ne na ma lam tooroo ma mag ne na du xale garaam la moo ko mag cey loolu dang may xoolal lii maar xool bagages yi gars yi dañ ko koy jox benn par benn amul jaxase ndeysaan mu ngay dem day wari géew ba cey li cey Diofior mu ngay dem de xool ni ko gaa yi xool borom café gi yàgg maar yaa xool làmb gis nga public bi xool nga gaa gars yi dañuy toog sérieux seetaan lamb takk seen ay masque kenn du saaga amul sànni xeer amul wax lu ñaaw maanaam publiku lamb ñoo yaru macha allah gis nga ñii ñëpp ay responsable lañu ñoom ñëpp ci kii laay njëkkee copain maa ngi lay bëgg. maa la bëgg bu baax kay. am nga jàmm. waaw am naa jàmm bu baax kay. mel ni yéen a ngi toog jàpp seen jàmbur di bëggee. waaw waaw ñoo ngi toog jàpp suñu jàmbur di seetaan di bëggee tamit. namoon nañ ko trop ndax moom mooy suñu cosaan ñun séeréer xamul amul làmb lamb lamb rek la xam waaw moom suñu cosaan waa xol sedd na guy. mais yow en tant que ma laaj la parce que tamit fans club Babacar yaa ko jiite mais tey yaa ngi tund làmb lii mu mel ni namoon ngeen ko. waa namoon nañ ko trop Babacar waaye lenn rek a ñu metti man muy seize yi ñuy toog. lu ci am. seize yi bu ñëwee ñooy fompal suñu bopp. te kenn fomput ko ñun ñooy fayal suñu bopp. ñun ñooy fay sunu xaalis jox ko promoteur bi fay ci mbër yi waaye bu ñëwee yaay jël sa morso maa jël soleil fompal sa bopp loolu la ñu gën a metti ci làmb te kontaan nañu ci promoteur bi ci benn point dañoo ñëw rek billet yi libre dañuy ñëw rek dagg nañ ñuy dimbale làmb yi dañu defal comme ça parce que ñun amuñ dara lu dul lutte simple ñun lutte simple la ñuy safoo du nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp waaye loolu la ñu metti ci làmb waaw mais promoteur u tey bi moom saisi daal bëgg nañ ñu ñuy fampal ñu nit ay nit lañ mu fampal ñu ko konka bi yi léegi bu ñëwee moom dañu koy defal ci affiche bi foofu baax na bu ñëwee rek dagg kontaan naa trop waaw ah, kontaan ci yow waaw <laughs> eh, botte na ko Tony Tony war na ko Tony war na ko Tony war na ko xale ba bañ na eh booy bi mën naa bëre Tony am nga bërekat boot ñu ngay waxandaalu wëndeelu mbaay mbaay waay Tony kii Tony dër na ca suuf e waay ndaw waaye xale yi ñoo mën a bëre waay billahi xale yi ñoo mën a bëre xale yii rek ka mën a bëre bëre nañu ñoom ñaar ba xandaalu Toné kim ko seqal musa fay waa daa mel ni moom la Moussa fay la e kon Toné am nga adversaire mooma Toné am nga adversaire musa loolu daanu ko ñaari bërekat lañu Moussa fay laa ilaha illallah mbotti mbotti mu bañ Tony Junior ak Moussa Faye arbitre atte na leen lu xew Faye Tony daan na ko Tony daan na Moussa Faye Tony Junior xale bu jar a bàyyi xel wax naa leen ko kii maa ko fekk Gambia maa ko fekk Mbuur wallahi daa mën a bëre Tony Junior combat bu méttee ngee jël na ko daanu nga daanu nga war na ko Doudou Sané war na ko Doudou Sané dina ko war Serigne Ndiaye war na ko daan na ko Serigne Ndiaye daan na ko Serigne Ndiaye daan na Doudou Sané nee na ko maa lépp xam-xam waa mbaru Fass la Tafa Gueye ko yor doomi Tafa Gueye la poulet Gris Bordeaux daan na poulet Eumeu Sène dañoo jeex bëre ba yàgg maar loolooy njeexaat Serigne Ndiaye daa jeex ak moom bëre bi ho ho ho dul saaneem siisu na dul saane siisu na siisu na dul saane yenu na loxo ya lii mooy ku jaaxle boo waaroo da nga yenu say loxo yàgg maar bii bi combat président Doudou Diagne ngi nii tey moom lañ tudde bés bi tey defe naa ne boo ñëwee xool public bi nga ñëw toog Doudou Diagne looy wax waa làmb tey xanaa desatul ma dara sant la yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi gërëm Fallou Ndiaye mi tuddee bés bi amateur lamb ji sama xarit la Combe Thiam ñu koy Moussa Thiam bari tey ñëpp amateur yëpp ñëw nañu donc dañuy sant yàlla julli si yonante bi bi ma ñetteelu yoon Fallou Ndiaye di ñu tuddee lamb bés bi na bésu amateur làmb ji et puis euh, président dara bi mu ñu may tey ñu organiser lamb xam ne lamb métti woon na daaw ba léegi promoteur joxe ay avance mun ñu ko respecté di gërëmin ministre des sports Matar Ba taxaw na trop si bés bi ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu xarit la mu nit ku dëggu mu nit ku am njariñ ku bëgg a xool vision président de la république mu koy def kon ñu ngi ñaan de président bu dégloo Matar Ba ci wàllu sport pour làmb ji lépp dina développé ñun amuñu lu làmb Sénégal amul lu làmb làmb rek moo mën ëpp indi réew jàmm làmb rek ko mën parce cosaan mooy suñu ñu ngi gërëm pres bi di gërëm ñëpp tey képp ku fi teew ak ku fi teewul jaale sa yumpaañ yàlla na ko yàlla yërëm ak mboolem jullit tey ñi génn ñi barki dee ba xeex génn àdduna yëpp yàlla na leen yàlla yërëm yàlla defal ñu jàmm ñu gërëm kilifa diine yi kilifa aada yi gërëm ñoom Diène Diouf parce que tey ñi nga gis ñuy organiser yëpp ci ñoom lañ bokk dañoo ñëw pour jàppale Manga 2 pour jàppale euh, CNG de lutte pour liggéey ñëpp ci gannaaw Diène Diouf lañ ne ak Saliou Diouf muy aram ndaa kon nag maa ngi leen di gërëm di leen seen seen taxawaay Yande looy wax si Doudou Diagne. maa lay fay non xoolal Doudou dafa am lu ma koy wax parce que xoolal ñu tuddee la drapeau cinq jours nga nangu ko. neuf heures fi la ko fekk seize moo ko fay moo ko fay pour ñu nettoyer ko kon buñ ne buñ ne président loolu tax ñu naan président nangu na génne alalam nangu na daj ay coono si ay nit man looloo tax mu neex ma te foo ko fekk mu lam poosam jox la mais loolu dafa baax gis nga nit ñi mën a bu ne boobu du moom kii la dafa yomb loolu rek la amul leneen maa ngi lay fay. ci loon maa ngi si jàmm. tur bi nan la. Fatou Gueye da ngay dund làmb. bu baax. waaw na doomu séeréer laa. dëkk fan. Caajaay. waaw. yow sama mbokk nga Caajaay am naa fay. dëgg la kay. Adja Mbayang Fall. amatrice su làmb bu mag. tey nga ànd ak sa président Doudou Diagne ñëw. ñu delloo ko njukkal. loo yëg. kontaan. kontaan sama xool sedd na torop ndax boo ne lit simple xam nga ne danga ciy boole Mbayang Fall. fu lutte simple nekk maa nga fa rawatina ma ànd ak président du Diagne Diéko euh, di sunu xarit jàppale ñu baax a baax a baax ak Diène Diouf ak Saliou Diouf ñu nekk ànd ak ñoom di liggéey ci amateurs yi di liggéey ci lutte simple kon kontaan naa trop kon teew fi tey. mu mel ni kon tey tamit xol yi sedd naa parce que lamb ubbi waat na. waaw lamb ubbi waat na Babacar mu nekk lu ñu namoon dañu ne amateur làmb lañu bëgguñu lu may làmb macha allah mu neex ñu loolu nekk loo xamante ne daf ñuy boole day boole amateur amatrice yi mu nekk loo xamante ne bu ubbee dañ ciy kontaan mais li ma ciy ñaax mooy ñu ñu jël mesure barrière yi respecté masque yi respecté raxasu bi bañ di joxante ay loxo su ma sañoon daal amateur yi ñu respecté loolu trop trop parce que Covid bi moom. mais sa musóor gi nan la tudd. dafa yàqu dafa xam nga dafa ngelaw bi may ñëw dafa naa musóor gu dàq musóor gi mais seen bi waa gisoo ko rek man yi laay dox may fulaar rek sànni may ko joor jool joor jool il ma joli baayam iliman jool moo ju rakki jool iliman jool binte jool iliman jool seleba jool iliman faal awa faal Seynabou Jobi ngone mbengi yaay jal sëriñ Ndakaaroy sa maam may nga ma xaalis nii nga war a mel yàq jomb def ñaaw nu jël sa mam bu ko may Fatim Gueye mook si ne bokk ndey ak baay duñu jaan jëmb sa kay sa maam yàgg maar dégg naa way boo ko déggee xam ki war a way xam lan mooy way yaakaar naa way wi nga dégg way pire nga dégg maa ngi lay bëggee góor gi Njaay borom tëngeej ndeysaan maa ngi lay bëggee doom yaay di gën a kontaan rek li boo gisee xamal ni Doudou maamam ak sa maam ñoo doon ànd ñuy ay gaawloo nag moom nag sëriñ Ndakaarooy maamam kon bu xew leen nii rek lay mën a nel mu xewle mu woo ma ne man damaa bëgg loo mën a jàpp nga bàyyi ko fekk ma stade kon su ma ñëwee foog ma jaar fa sama waajur yi daan jaar ay waajuram moo tax kontaan naa trop doom yaay jërëjëf jërëjëf doom day Manga 2 dama lay remercier waat ziar la parce que defe naa tey yow bànqaas bi ñu la dénk ci làmb macha mu ngi dox mis yi bëri na Dakar am na tey Joal tey ak suba Dakaraat suba mu mel ni rendez-vous li simple yi na Manga te loolu yow lañ ko dénk. waaw di leen remercier rek di wax ne sant yàlla la parce que suñu ubbee làmb ci lutte traditionnelle sans commencé ko ci terrain gaal gi foo xam ne foofu mooy suma fief ñëw ci Adrien Senghor suba encore tey ñu ngi nekk arène nationale bi. dinañ fi ñëwaat arène nationale loo xam ne lu mësul am kon nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax di remercier amateurs yi di remercier public bi euh, di remercier les promoteurs rawatina nag les télévisions les sites les journalistes la presse écrite képp ku yëngu ci làmb rek ñu ngi lay gërëm di la sant parce que yéen a tax làmb egsi fu mu egsi yéen a wax làmb yéen a jox làmb xam ne loolu seen sport national la ngeen jox ko gërëm kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne toujours dañuy continuer ci lutte traditionnelle bi ñu ko doon defee dem ak barke dem xoolal public bi mu mel xoolal discipline bi mu mel kon yoo rek sant yàlla la di remercier le ministre des sports Mactar Ba boo xam ne nitu làmb la ku bugg a làmb la ku bugg a la kon nag ñu koy sant di ko remercier bu baax baax rawatina nag suma président mënu ma jàdd gërëmu ko ndax Birane Sène ci terrain gaal gi kaw la la jógee ñëw seetaan si làmb nekk suma wet tey encore mu ñëwaat encore ñëwaat suma wet kon monsieur le président maa ngi lay gërëm di la remercier ci taxawaay bi nga am ci lutte traditionnelle bi. président Birane Sène maa ngi lay nuyu di la ziar. fay naa la di la ziar encore. waaw yaa ngi si jàmm. maa ngi sant borom bi. làmbuñ Sénégal tey yàlla dogal ñu dénk la ko. man li may njëkk li ma seetlu mooy lamb daa ubbi terrain gaal gi bari mbooloo bari ay nit nga ñëw jaxasoo ak nit ñi maanaam muy loo xam ne daal man image bu ma la lan moo tax nga def loolu. Euh, merci jërëjëf maa ngi leen di gërëm leen di sant li tax du dara dama nekk euh, ku bokk ci làmb di ko dund ba ma nekkee xale ba léegi kon nag su ma yegsee ba dana fàttali lu bari ba xam ne làmb ak loolu ñoo ànd làmb jaxasoo la d'abord soo demee ci dëkk cosaan yi da ngeen di wërale ay sàkket rek ñi toog ci suuf ñi ci ay basak ñi ci ay chaise kon su ma ñëwee mu fees dell amateur yi wane ne dañoo namoon làmb alors kontaan ci trop la fa amoon su nekkoon ci yeneen jamono la xëy na mun na bañ a yegg mais ni ànd ak discipline wane ne làmb ji ñoo ko moom namoon nañ ko ak lu munti xew danañ ko mën a dékku danañ ko mën a muñ ànd ca yar a teggin loolu la woon mu nekkoon ouverture bi ma i il faut que ma ñëw fekkee ko waaw. kon daal sa xol sedd na. ah suma xol sedd na vraiment. ah man nag maa ngi lay ñaanal mission bi yàlla na yomb. amin amin yàlla mu nag yàlla ko yàlla yombal. yooyu ak Fallou yéen a bokk ndey ak baay tey mu ànd ak staff bi tëgg bés bu mel nii defe naa tey man gisuma sax Fallou xaw ma fu mu dugg mais ginnaaw bi ginnaaw bu Kimbar olof a wax yaay tey loo yëg ci li ngeen def nii. waaw kontaan rek suñ xol sedd di nuyu ñëpp du sant ñëpp xam na Sénégal ñu ñëpp benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu ñu wootee ñëw moom xam na ne tàmm nañ ko lii moom daanaka yàllaa ñu ko defal daal daanaka chaque année bu ñu ko defee rek doomu aadama yëpp wuyu suñu doomu aadama daal bu si xol rafetee nga yéen a ñëpp jaam doom benn gàllankoor xam naa ne réussir na total mais ñoo ngi gën a sant yàlla bu baax a baax Babacar ndax xam naa ne yéen tamit am ngeen si tànki taxawaay yu baax baax ndax def ngeen seen promo ni mu ko waree ñoo ngi leen sant tamit di leen gërëm yéen site yëpp.